la ñuy daal di fekki léegi ca diwaanu Kees foofee nag nga xam ni tiis wi ñu leen doon wax nag euh, mi ngi ñeloon tiis bi ñu leen doon wax mi ngi ñeeloon ñetti nit ñoo xamante ne nii nag dañoo faatu woon ca Tiwaawan seen wayjuru mooy ki ñu leen doon wax fan yi yëpp te mu woowaloon ay xol yu bëri boobee ba léegi nag euh, leeragul sax euh, condition nga xamante ne nii ci la génne àdduna ba ñu leen di denc tey ji nag euh, ay aw tiis amoon na fa itam ñu ñaanal leen ba ñu yegg ca seen kërug dëgg gu mujj di xalxuus ca bàq ya Cheikh Anta Diop beneen jotaayu xibaar ñeneen ñoo xamante ne nii tey ji it ni ne dañoo reeroon ba tey ji nag euh, la leen euh, géej gi mujj gëq néew yo nag euh, soppiku lool ba kenn munta xalaat di ko yanu yóbbu fen foofe ca ronk nag la préfet ba wax ni nañu leen daal di denc foofe nag ca takkal dex ga ñaar ñi nga xamante ne nii nag ñoo ci bokk ñoom ay mag ak rak woon jóge woon diwaanu Saloum ñetti minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. askan wi ndox mi la ñuy waxtaanee Jo Maron yaa ñu teewaloon ci ndaje mi nga xamante ne nii bu Ndakaaru seqoon na ko ak ñoo xamante ne nii ci banlieue bi la ñu jógee ñooñee lan la ñu sàkk ci moom. waaw ñuy fàttali nag euh, ñu nga ñooñu ay kuréel la ñu yor ay kuréel ñi ñi nga xamante ne ñooy taxaw ngir xeex mbën mi foofu ca banlieue bi ñu boole seen bopp ñu tuddee leen réseau euh, des volontaires pour le développement de la banlieue. Euh, tey bi ñu dajee gouvernement gouverneur bi liñ ko gën a eggee rek mooy fexe ñu indi leen ay moto pompe yokk nañ ci nag li nga xam ne mooy mbirum canalisation gis nañ ci ay zone yu bëri zone yu ñuy wax zone rouge muy Thiaroy muy Jida Thiaroy Kawag mooy Diamaguène ay Kër Massar loolu yëpp nekk na ci ay jafe xam ne soxla nañu ci ni ma gën a gaawee gouvernement bi daal ci indi ay ay solution gouverneur ci boppam bu muy tontu xamle na ne am na sax ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy def waaye nag lu mu wax li askan wi wax dégg na bu baax a baax te fexe ci fan yi di ñëw ñu gën a yokkaat mooy ndax mu mooy moom am na foofu déjà xanaa gën ko yokkaat rek waaye nag fu mu jeexalee gouverneur mooy nañu fexe askan wi ci jumtuwaay yi xam xamante ñu ngi koy teg ci place ngir xeex mbën mi ñu fexe rek askan wi respecté ko ndax dañu faral di gis ne dañ koy yàq ci kanam tuuti yàgg moom seen waxtaan Salif Sow maa ngi lay nuyu di la fay alaaji ma ko bébé am na ñoo xam ne génn guñu kër i kër alaaji Makumba waaye Euh, li nga xamante ni moom mooy seen bët for bët tey guddi mun na doon jafe-jafe doxantu nañu ci quartier yi nga xamante ni amee na ñoo xamante ni fekk nañ leen na yéen a ngi ni xale yi fa lañ doon defee entrée en sixième seen tànk ca biir ndox ma doxantu nañ ci quartier bi ni foofu la école bi di nekk di cité Junkoom fekk nañ leen ña ngay ngacc ba ñuy agsi lii wéy na ñoom ci biir ndox mi la ñuy fanaan wala bokk ci mbedd mi ne la ñuy fanaan tey ñoom waa cité Djidigoom hmm. lu lu mel tamit lañ seetlu alaaji Njoogu alaaji Makumba ci yeneen bërëb yoo xamante ni ñu ngi faree golf fu mel ne unité fi nga xamante tamit mooy Sadia fi nga xamante tamit mooy unité 3 ba ci sax fi ñuy wax case bi ndaxte foofa dañ fa seetlu ne am na ndox li ko waral foofa du leneen lu dul liggéey ñu door ci BRT bi bus rapide transit bi nga xamante ni dafa xotti dëkk bi soppi li nga xamante ni moom mooy système d'assainissement bi bañ jotoon a am waaye a jóge ci benn gox dem ci beneen gox jafe-jafe dëgg la ndax ni ñu xottee dëkk bi nga xamante ni moom mooy euh, géejawaay wàkki naa ni tamit sax dina fa jafe-jafe fu mel ne marché euh, xelkom kër yi nga xamante ni ñoo ko uuf am tey bu baax a baax wàkk naa ne sax li fi nekk ci ay point ba ëpp na juróom-ñeent askan woo foofu seen génn dëgg nañ yuuxu wallu ci ngoon ba léegi nag ñu wër ko leen wallu ndaxte nee ñu ñoom dañoo jege dex bi te ku muy wu ndoxu dex bi mun naa dagg fekk si kër yi ndax foofa nañ ko tabaxee mujj na gunaas frontière ba ak jiite caaray kaw fi ñuy wax garage Kalando foofa moom jafe-jafe tamit dëgg ngi fa ndaxte kër yi ndox ma mu ngi fay tàmbali di dugg njaareem li maamu laay boo fa ñëwee fi ñuy wax amoo siis alaaji Makumba doxantu nañu fa tamit fekk nañu fa ndox ma waaye daal jàpp nañu ne géejawaay gox yu bari fi ñu toll nii amee na ndox tali yu bari tamit tagg na dem bi ak dëkk bi sooxe na hmm. askan wi jàpp nañu ne yaakaar nañu ne ragal nañu ne bu fanaanee nii ñu bari fekki ndongo ka ca Pikine ndongo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax ma Kumba. yéen ma jamono ji situation bi nu mu tëddee foofu. waaw euh, fii nag euh, ñu jàpp ni taw yi tey jii nii am na ay jafe-jafe yu mu foofee nag euh, am na ci quartier yu bëri ñoo xamante nii ña fa dëkkee ñu ngi ci jafe-jafe mënuñoo génn mënuñoo kenn mënut dugg ñëpp day tëju fu ci demee nekk kër Bak Alaaji Paate cité Camille Bass cité La Linguère kër Cheikh Lo sant yàlla foofee ndoxum taw mi ñoom sonol na leen bu baax waaye nag am na ci yenn ci ay communes yoo xamante nii ci département bi jafe-jafe yooyu lañ daan nemmeeku waaye tey jii ci alxamis ji mu mel ne yooyu rek jafe-jafe taxu lu mu jéggi dayoo euh, fu ci demee ni ki ginnaaw raayu noor foofee ñeen ñi jokkool ci ña fa dëkk ñi xamal ni situation bi daanaka euh, neex naa gérer fu mu toll ni ginnaaw raayu sud it euh, tunnelu train express régional bi mooy pont bi nga xamante ni ndoxu taw mi da ko nangu woon complètement ci taw yi nu génn tey jii nii demee woon na ci yenn ci ay quartier yoo xamante ne nii ba léegi nag yelloo na ñu gestu leen dimbal leen ndax ñay wëy di ŋàcc fu ci demee ni ki Tivaouane gérer hmm. jàmm gën si kaab mbaaw moom it euh, bokk na ci gox yi nga xamante ne ni inondation sonal na ren ndax ñàkkum euh, canalisation waaye ñi ciy liggéey ci terrain bi euh, ñu ngi commencé am ay résultats fu ci demee ne ki Taïf lew na jàmm gën Nasrola Sam-Sam ci pont foofe moto pompe yenu yor tax na boobaak léegi nag ñi ngi ci góorgóorlu ngir jële fa ndox yi nga xamante ni ñooy taa waaye fu ci demee ne ki tali Maam Jaara ñi ngi ñu xamal sànq ni ñu daal taw tey jii nii tax na ba situation bi xaw a compliqué mais wute nag yi ñu daan euh, nemmeeku mm-hmm. ñoom nag juróom ci ay moto pompe lañu yor tasaare ko ci dëkk bi am na ci boo xamante ne ni euh, trois cent mètres euh, cube par heure la ñoom nee nañu boobu xajul ci ndoxu taw Makumba mm-hmm. jërëjëf Ndongo Ka Abdou Diouf maa ngi lay nuyu yaa ngi Tëngéej maa ngi lay fay Makumba waaw yéen itam foofu am na ñoo xam tey ji bitti la ñuy fanaan waaw waxi ndox nag Makumba ren ji moom bu ñu ko waxee xel yëpp dafay dem ci quartier nekk ci route nationale bi bokk tamit euh, ci commune bu Rufisque Est moom nag jamono ji nga xam ne mu ngi taw jokkoo ko benn wayjurun wayjur boo xam ne ma nga fa mu ngi xamal daal naqar gi nga xam ne moom la àndal nee na ba jamono ji moom ak njabootam ñu ngi toltolaan di fexe nu ñu génnee ndox mi ak ñi nga xam ne nag ñooy seen ay dëkkandoo ñoom ñooñu nag ñoom dañoo jàpp ne liggéeyu train express régional moom moo leen teg fitne gi nga xam ne jamono ji moom la ñuy dund ndax ab pont la ñu def ci seen bopp koñ ba nee na ndox ma léegi dematul ca canal ba nga xam ne nag fa la a dem mais dafay jawal wuti seen biir kër yi loolu indil leen jafe ku nag néegi ni daaw doon nañ ko waxtaane fii ci Colobane Guy Marius doon jàng ndox ma dafa demul fa war a dem di jaar seen kër loolu nag wutoon ci saafara moo tax waa Colobane ñoom tamit di sàkku wutal leen saafara daal ngir mën a sàggoo ak ndox mi ne dafay dëkk naka di nangu seen kër yi te jamono ji may wax ak yow ñu ngi xool ñoom nu ñu mën a génnee ndox yi seen kër yi muy fitna gu rëy ci ñoom am na sax kenn ñenn ci ñoom ñoo xam ba dañuy tëddaani ma kumba mm. a ngi ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkoonte ren ji ndox mi du dem ba pare ndox ma dafay jaxasoo ak ndoxu foos yi ba tax ñuy xalaat mu indi leen ay jafe-jafe ma kumba jërëjëf Abdou Diouf Diagne ca Tëngéej ca Nabi maa ngi lay nuyu maa ngi lay ma Makumba. yéen démb quatre-vingt-dix millimètres ñëpp xam nañ ni xajul foofu ndar. waaw ci Ndang lu mot daanaka quatre-vingt-dix kilomètres euh, li nga xamee ni euh, nawet bi <laughs> millimètre ba mbir mi amee ak léegi euh, maanaam nawet bi ba mu dooree ak léegi taw bu ni mel jotaguñ ko woon na am ci dëkk bi nawet bi daanaka mën nañ jàpp ni mi ngi soogay taw taw bu ni mel ba tax na nag gox yu bare nekkee jafe-jafe ndox ndax su fekkee seet nañ sax fu ci mel na Euh, tableau waalo ak euh, yeneen i gox yu nekk ci ndang ndox mi dafa doon euh, ball souvent wala di taa te lii di taw bi ñëwagul ndax nag comme ndang dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am dex ba tax na su fekkee tijji nañu lii di barrage Maka Jama kër yu bare yoo xam ne dafa nekkee ci gox yu suufee yi lii di ndox mi dafa doon ball taw bi nag ñëw yokk ci quatre-vingt-dix ma Macoumba mu doon lu diis metti lool ci ñi nga xamee ni ñoo ngi dëkkee ci gox yu ci mel na Medina yu ci mel na Medina Daaru yu ci mel na Medina Course yu ci mel na Ginnaaw Raay lu ci mel na euh, fii di Pikine rawatina sax tànk ci ngoon rek bi ñuy romb ñoo ngi say kër yoo xam ne ba léegi nit ñi ñoo ngi at am na ñoo xam ni mokk ba dañu yëkkati seen ay lal jël ay briques ci maanaam ngir mën ci fanaan am diggu kër yoo xam ne am na ndox lu ci bare nag ci euh, Pikine si daan kaa gis nañu évacuation lii di euh, taw bi ci yenn mbedd yi ndox mi dem na bi pompage bi euh, defee liggéeyam am na fu dem waaye ba léegi am na gox yu bare bare yoo xam ne ni Macoumba ñoo ngi ci fitna ak sonn ba tax na nag ñoom ñu bëgg daal euh, programme d'assainissement bi mën a gaaw liggéey bi nga xam ne dañ koy def fii ci biir Pikine waaye itam ñu jël ay lu ci mel na moto pompe yi wuti lu mel na euh, gannaaw raay lu ci mel na Médina course génn li nga xam ne rek moo di ndox yi gis nañ ko sax ni tey ji ci lycée Charles de Gaulle lii di épreuve physique yi waroon am ci lycée Charles de Gaulle dañ ko toxal yóbbu ko ci stade Mawade Wade mhm. ngir ñi nga xam ne dañuy def euh, BFM Macoumba jërëjëf Mouhamed Nabi si la ñu des ba léegi ci région bi Richard Toll Mamadou Diagne maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Macoumba la ñu wax ni ñoom ñoo ami jafe-jafe waaw mu kan ndax euh, Dagana mën nañu jàpp ne biñ ko méngalee daaw si heure bi problème mu ndox sonal leen war ren euh, ak ni nawet bi demee daam si gox ya ak Sénégal yëpp Dagana mucc si ndax ma guma bi ñuy jokkee ak léegi maire bi lay mu ngi ñuy xamal ne am na quartier bu tudd jàmm gën boo xam ne mi ngi foofu si biir Dagana tey askan wa féete sa gox boobu mën naa wax ni ñi si bëri tey duñu faral seen i nekk li waral lool nag mooy euh, mbënd bi nga xam ni moo fa ñëw ginnaaw bi nga xam ne département bi enregistré na ay tawam si ñaari fan yu mujj mais taw yu métti daanaka bu ñu sukkandikoo si euh, adjoint maire mi ñuy xamal loolu li ko waral mooy problème assainissement la dëkk bi am. problème assainissement waaye tamit euh, moto pompe bi nga station pompage bi nga xam moo fi nekk doole ji na mu doon demee doole ji demee wu ko ndax ba ñu koy defar ci atum 1996 côté yooyu woon te léegi dëkk bi dafa màgg te yokkuñu puissance su station de pompage boobu maire madame le maire mi nga xamante ni def nañu lépp lu ñu mën nañ ñoom waxtaan nag autorité étatique yi mais fullaa lu ñu leen seen doléance boobu. si waxtaan ak euh, waa direction eau et waaye ba jëmmi yàlla tey mu kumba waxtaan yooyu mujjul fenn. li ñu mel nag lañu ñu seet aussi si commune bu Gaayeen ndax euh, léegi nag la ñu la le maire bi mu ngi xamal ni moom tamit euh, problème assainissement la am si dëkkam. Hmm. ndax euh, boo méngalee Gaaya ak Dagana xam nga Dagana suuf si am na fa doole waaye Gaaya li lañu moom mi ngi xamal ko lu si ëpp si magasin de stockage yi xam ne nekkoon ne fi lu si ndox ma nangu naka ba ñoom dañu mujj jël seen moyen boobu indi ay moto pompe moto pompage ngir génne ndox mi si biir magasin yooyu ak yenn kër yoo xam ne ndox mi tàmbali woon naka nangu foofu si biir Gaaya. moom sax mi ngi ñuy xamal novel bu neex mi ngi xamal ni waa direction prévention des inondations mi ngi xamal daañ ñëw si commune bu Dagana ak commune bu Gaaya si samedi bi mën a def ba problème mu mbënd boobu ñu mën ko saafara si diggante ñaari communes yooyu mu nekk ñaari commune yoo xam ni benn problème majeur la ñoom ñoom moo leen boole muy problème assainissement mhm. moo leen sonal ñaari communes yëpp. jërëjëf merci beaucoup Mamadou Diagne ñu doon jokkoo moom sunu correspondant ca Richard Toll wàcc ba diwaanu Saloum Ibrahima Diame. jërëjëf euh, Makumba maa ngi lay fay bu di la nuyu di nuyu waa kër gi yëpp jamono ji yéen itam euh, ndox maa ngi ni xem bu foofu. justement baritier yi di gaawaan Samb ak euh, Touba Ndorong extension ñeenti quartier daal yoo xamante ni ndox mi bëri na fa lool lool lool tey jii ci bëccëg bi rek fa la ñu yendu daanaka waaye askan wi sonn nañ trop li nga xamante ni nag da leen bett lool. ndax euh, ay travaux de canalisation yoo xamante ne jotoon nañ ko fi ko fi def fii ci fii ci commune bi ndax euh, gis nañ ne depuis daaw ñu ngi doon gas ay canalisation def ay ay bassin de rétention waaye mu mel ni daal yëf yooyu taxu ko taxu ko am résultat yi nga xamante ni moom la askan wi doon xaar ndax boo fa demee Makumba ndox mi ni mu daan bare noonu rek la mel bu ko ëppul sax mu mel ni kon askan wi ci seen gis mu la ko waxee ndax daal yaakaar yi ñu doon am ak euh, ni yëf yi demee euh, métti na lool mbiri ci quartier Sam du génn nañ seen kër ya boo ñëwee dugg ci biir dangay waarul lool lool lool ñu bëri euh, dañ leen fàtte ci yenn yeneen kër yoo xamante ni ay étage lañu donc kenn mënatu foo ànd fi mu toll nii de hmm. euh, ñuy laaj nag travaux yooyu nga xamante ne engagé woon nañ ko fan la toll exactement ndax ñu ngi doon rumbaandaat ne defa am blocage ba tax na daal yëf yi mënul yemb i euh, xibaar sax foofu ci askan wi dañu jàpp ne euh, liñ canalisation bi ñu waroon lu ñu waroon a yëggali jëmale ko ci géej ga moom moo yëgul ndax dafa am benn station boo xamante ne dafa bloqué liggéey bi loolu nag dem nañ ci jokkoo ak préfet bi préfet bi xamal ñu ne loolu euh, xel waru ko xalaat ndax ah. euh, projet état ay euh, privé waru ko mën a gàntal waaye daal foofu la yem ak ñun waroon nañ ko gis tey jile pour mu leeral ñu exactement fan la liggéey boobu la toll waaye daal xam na waaye jël téléphone am ñu jàpp ne rek fi mu toll nii askanu xaaxun ak gaawaan ak li ko wër yëpp sonn nañ lool Makumba. jërëjëf ci mi chaque année.